baada ma wa baada lam ni ki maa lam yaala man wa baada laa ak gannaaw laa rek naafiya kooko néew na ca laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa kooku néew na lu mu am wa xayri imma ak ci néew na it ci gannaaw lu dul imma min tawalibil jasaa'i ci yi nga xam ni dañuy adaatu sart yi sàkku jawaab ka xawlihi man tasqafan minhum fa laysa ibbi aibin abadan wa qatlu bani qutaybata shaafi man tasqafan satar bu njëkk bi la andi man tasqafan minhum fa laysa bi aibin tamaamu bayt bi mooy abadan wa wa qatlu bani qutaybata shaafi dégg nga man tasqafan koo fekk manum charte kooku bokkut ak imma nee na néew na lu mu ñëw ci ci taalibul jasa mooy charte rek ci sart bu dul imma néew na ca diggi boobu wa axiral mu ak wa axiral mu akkadi iftax ibrusa mu ni nag waftax fataal axiral mu akkadi mujj mu daare o ma ñuy fedd léeg nun nanga ko fataade ni ki ubrusan génnal ubrus génnal feelu lamar la waaye comme da nga koo nar a fedd léeg nunu tawkiit xafiif nga ni ubrusan bu doon guñu saadaat ubrusan uqtulan uqtulan mujj ga dañ koy fata noonu tawki dégg nga waskulhu qabla mudmarin laynin bima jaanasa min taxarrukin qad ulima waskulhu na nga maas noonu mujjug li ñuy feddali dégg nga na nga ko maas qabla mudmarin laynin la jiitu damir joo xam ne ju nooy la xarafu nooy damir joo xam ne kile la nee na na nga ko maase bi ma jaana sa ca la xeetoon teeg damir ja min taxarrukin ci maska goo xam ne xat ullima du dégg looloo tax nga kasra la jëkk yaaga ca fa imma tara yin na dàmm waawa ci la tub la wun na waskulhu ay bi xarakatin munasibatin li xarfi liini wa maalumun an alladi yunaasibu l alifa mooy fatx walladi yunaasibu l waaw mooy dam walladi yunaasibu l yaa mooy kasra su ko defee nag wal mux wal mut ma rax di fannahu damir joojee doon waaw wala yaa nanga ko ataf illal alifa lu dul alif nag seetal su dégg nga wala taqulunna dégg nga wala taquluuna dégg nga walladi yunaasibul waaw moo di dam walladi yunaasibul yaa mooy kasra su ko defee wal mudmara damir ji moom ixtifan xalaf ko illal alifa lu dul bu dee alif niki aywa ay ixdifi damira in kaana waawan aw yaan wabqihi in kaana alifan fa taqulu yaa zaydaani hal tadribaanni dana la wax ca kanam ne la nag dañu koy kasaf dañu koy kasra kon nuun ga gannaaw alifa ko jiitu alifu tawkiid shadid nga ni laa tad hal tadribaanni wa yaa zaydoona هل ها يا زي يا زيدون هل تضربن كده دفا دس في ci mbindin ويا هند هل تضربن ndax tadribi la woon kii tadribo la woon wal aslu hal tadriba ci hal tadribani lu doon ci hal tadribanin su ko defee ñetti nuun yi kenn du ko hal tadriboo nan na ñetti nuun kenn du ko boole hal tadribi nin na fa xosifat nuunu raf i nag li tawaalil amsaali ngir toftalooy ñetti kemi nuun yi ñu dindi wàññi ko dégg ben sumal waaw gannaaw gaat ñu dindi waaw ga wal yaa liltiqaa'i saakinayni ngir dajaw ak ñaari tunkir moo tax su fekkoon ni hal tadriboo nan na ñu ne ñetti nuun yi dañ koy dindi ñu dindi nuun rafaa gi noon tadriboo nan nuunam la ñu dindi bàyyi fa an na nuunu tawkiid gi dégg nga waaye nag soo fi bàyyee waaw yi ñaari sukkoon daje noonu gu ñu sadda gi sukkoon la waaw wi sukkoon gu dee la moo tax nga dindi ko nga ne hal tadribunna walam tuxdaf il alifu li xifatiha alif comme dafa woyof ci tadribaani nag moom ñu bàyyi ko fa waaye nag itam kon nuun ga dañ koy kasra amma bu fekkoon ne nuunu tawkid xafiif nag léegi dana la ni walam taqa xafifatun baada alif lakin shadidatun xalfu haa ulif dégg nga dégg nga wa kasru haa ulif loolu léegi moom dana ko ci bunt bi maanaam nuunu tawkid shadid dégg nga du dikk ci xafiifa du dikk ci gannaaw alif mën na dikk ci gannaaw waaw hal tadriboona nga hal tadribun hal tadribiina nga ni hal tadribin waaye hal tadribaani kenn du ni hal tadribaan déedéet noonu du sadda ngay andi te kon nag nga kasaf ko wala tattabi'aan ni jàngoo ko ci alquran wala tattabi'aan ni ci suuratu yunus fastaqima wala tattabi'aan ni la tattabi'aa ñaar la ñuy waxal feelu mu daare tattabi'aan ni ñu jasam ko ak xadaf nun ndax ci fin li juróom la mu ne laa tattabi'aa bu ñu ko tawkiidul nga ba noonu laa tattabi'aa bu leen topp yéen ñaar nga bëgg koo feddali nag andi bul andi nuunu xafif du topp ci alif dana ko wax nga andi shadid wa kasruha ulifa kasraam nag la ñu miin da koy kasar mooy wala tattabi'aanni in yakun bu nekkee fi axiril fiili ci mujj fiil ji nga bëgg a feddaleeg nuunu tawkiid bu ca nekkee alifun ak alif kon bu wa in yakun fi bu ci fekkee alifa ca ne faj alhu defal alif ga minhu ci moom yaa an muy yaa xaala kawnil fiili raafi an xayral yaa i wal waawi dégg nga loolu bu fekkee alif dafa ne ci mujj feel ji nga bëgg a tàggat maanaa ji nga bëgg a feddali alifa ca ne ni ki yaxsaa ak yasan ne fekk booba bu nga seet la mu rafaa faayilam lan la bu fekkee ni mën na yaaw tafaalina ndéem jenn jigéen ngay waxal N- dégg nga wala mu nekk waaw ndéem mbooloom góor nga doon waxal dégg nga su fekkee dafa rafaa damir bu dul yooyu yaar dégg nga faj alol defal minhu ci alif ba ah yaa an yaa muy yaa moom alif ba na nga ko soppi yaa xayra rafi an fekk ma ngi rafaa xayral yaa i wal waawi su fekkee damiru yaa lay rafaa mbaa damiru waaw kooku danañ wax su ci raf su rafaawul leneen ni ki damiru mutakalim an muxaatab anta na nga ni kon soppi ko faj al hu def ko yaa an faj al defal al alifa alif ga minhu ca fi'al ja yaa an muy yaa fekk waxtu wa nga xamee ne dafa rafaa lu dul yaag waaw ni ki is a yan na sa yan yaa googu mooy alifu yas aaga ah is a yan na bu dee feelu la man bu doon bu doon mu daari omaat nga ni ko la tas a yan na alifu yas a nga soppi yaa ndax fii anta la fi'il ji rafa su fekkee ni mu mel na da nga ko ni waaw waaw waaye nag su fekkee yaar yooyu la rafaa nag ci fi'il yi juróom la yaaw tafalina la rafaa wala waaw yafaluuna mu ne kon wajalhu na waxdifhu na nga xadaf alif ga min rafi hatayni ci fi'il ju rafaa yi yaar kon xadafal alif ga waaw kon nu ñuy xamee ni nag dañu faa xadafe yooyu mu ne ah wa shaklun ak maska mu jaanisun gu xeetoog waaw ak yaa o fiya tofaleef na ko mooy am kon ni ki lan naxwu ixshayin ragalal dégg nga dégg nga ixshayin yaa hindu bil kasri ixsha yaxsha la woon alif mujj ca nga soppi alif ga nga xadaf alif ga dégg nga ndax tafaliina la yaa gi fi nekk mooy fail yàlla rafa taxshayiina ni ki tadribiina yaa googu mooy fail taxshayiina yaa ga mooy fail alif ga nag moom nga xadaf ko ndax ba nga fataala ko jëkk da nga noon te yaa gi sukkoon ñëw dafa doon taxshayna nga dindi alif ga alif ga moom dem na mu def taxshayna yaa damiru fail bee soo ko bëggee feddali nag nooy def ndax noonu feddal gi day sukkoon te yaa gi dafa sukkoon nga kasra yaa gi moom gannaaw ba nga xasafee alif ga nga indi xaraka gu naan doon teeg yaate mooy kasra su doon waaw ni ki tax shaw na la woon da ngay xasaf alif ga ni tax shaw na soo ko bëggee feddali nga ni tax shaw wun na ni ki la tub la wun na dàmm moo xeetoog waaw daa dégg nga ah moom la ni bu fekkee ni fiil ji alifa ca mujj da ngay seet su fekkee waaw fiil juróom la rafaa wala yaawu tafalina la rafaa kon da ngay ra- xasaf alif bi yaa daag waaw nga seet maas ko xeetoog ñoom rek xam nga ni ku ne xam na ni yaa kasraay xeetam waaw dàmmay xeetam nga ni is dé- du du dëgg nga ni ixshayin wala ixshawun yaa qawmi ixshawun ragal leen ah su fekkee leneen la rafaa lu dul loolu da nga ko soppi yaa fa ni ki is a yan alif ga nga soppi yaa xanaa yett yooyu rek a fi ne waaw la rafaa wala yaa wala leneen la rafaa bu rafaayee leneen kon da ngay soppi alif ga yaa su dee yooyu yaar la rafaa nag da ngay dagg alif ga wàcc ba yeggal yooyu nga andi ku ci ne nga jox ko masque gu mu xeetool mu tegtale lu ñu xagal ba dégg nga loolu waxdifu asafal alif ga min rafi atayni ci feel ju rafaa waaw ak yaa bu boobaa nag soo ko xasafee wa sha- wa shaklun ak marka mu jaani sun gu xeetoo ak waaw ak yaa ku fiya tofal nañu ko waawan waaw wa yaa an yaa waaw ak yaa dañ leen di tofal maska gu xeetoog ñoom naxwu ixsha yin nga kasra ko yaa hindu bil kasri ci kasra ga yaa qawmu yéen góor ñi ixsha wun ragal leen wat moom dàmmal waaw ga waxis xiyaasa loolu mu saw yéen di aji yemale rek toujours ba feel yëpp yemale bépp feel bu alif mu joon noonu la ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة وكسرها ألف ولم تقع ديكوت شي وخي عرب خفيفة نون التوكيد غني سادوت بعد الألف شي غناو ألف مو خم ألف التثنية لا نكي ولا تتبعان ألف نيار لا ولا ألف بديك للفارق بين النونات ولا ألف بديك دي تقلي ديغنت نون يباري نكي اضرب اضربنا دور لين du dëgg wala la tadrib na yéen jigéen ñi fii lu mu daari umum nga bëggoon koo fedd ah ni ki la tadrib ban na bu doon góor léegi mbooloom jigéen la nga ni la tadrib na nga ni nag da nga ko feddeeg léegi nuun ñun la mën nga ko de waaye bul séddale bul séddale yetti nuun yooyu doo duñu la bàyyi nga naan la tadrib nan na waaye kon nga andi alif lil farq bayna nuunaat nga ni la tadrib naa doora andi nuunu tawkiit gi waaye kon nanga ko kasra de te nee na la nuunu tawkiit gu ñu gu gu gu xafiif du dikk gannaaw alif mukk moo xam alif gu damir la wala alifu farq bayna nuunaat lu mu ci mën doon wa kasruha kasrak alif ga ulifa miineef na ko sooy boo jàng torfa ni ki laa tadrib naanni la laa tattabiaanni sabila alladina laa yalamun ندم ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن سديدة لأن نون توكيد خفيف دو دقنا ألف معنى إدربا كان دون إدربان إدربان ديدت إدربان نون غنك دان كوي كسرمو دين مني وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا و- وزد يوكل ألفا ألف قبلها لجك نون توكيد xaala kaw ni ko fekk yaa ngi nekk mu akkidan fi'lan usnida ila nuunil inaas yaa ngi feddali fi'l joo xam ne dañ ko wéer ci nuun niswati ni ma misaal léegi idrib na yaa nisaa'u nga di ko feddali na nga na nga yokk alif idrib naan ni pour mu tàqalee diggante alif yooyu dégg nga dégg nga waxdif xafifatan li saakinin radi na nga xadaf nag alifu nuunu tawkit xafif li saakinin ngir sukkoon goo xam ne radifa topp na ca wa baada gayri fatxatin na nga ko xadafit ci gannaaw lu dul fata ida taqif sooy taxaw du dëgg moom nu alifu tawkit xafif nee na bu ca ak sukkoon jokkee xadaf ko dégg nga ni ki ni ki tey soo bëggoon wax waaye ni ko ilzam taqool alxasda njub normal nga feddali ko ni idri ilzaman ilzaman al toppaat ca nee na kon da nga koy xadaf waxdif xafifatan li saakinin radif ngir sukkoor gu ca topp nga ni ilzamal ilzamal xasda fataa gi mooy tegtale ni nuuna fa nekkoon ilzamal xasda wa baada gayri fatxatin na nga ko xadafit ci gannaaw ludul fataa إذا تقف بودي تقو آه. وبعد متعلق بحذف أي واحذف نون التوكيد الخفيفة بعد غير الفتحة في الوقف وهو الضمة والكسرة واو وردت إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوقف وصل كان عدم وردت دلو سلك في الجا إذا حذفتها سو حذفي النون في الوقف تتخو نغا دلوسي ما xaraf wa nga xam ne kaana nekkoon na udima ñu ñàkk ko ñu xadaf ko min ajliha ngir nuun nga fil wasli ca ba ngay jokk léegi kon soo taxawee dindi ko la nga xam ne nuun gee taxoon nga xadaf ko delloosi ko xarafu ràgg yooyu maanaam idribun du dëgg idribun nga doon bëgg a wax soo dee taxaw nag dégg nga xadaf nuun gu woyof googu kon waaw yi nga xadafoon ngir nuun gi delloo si ko dellool wax idribu su boobaa idribo ji ñu feddali woon ak nuun naan idribun ak idribo ji nga xam ne mosu koo am ñooy daal di niroo ndaxte boo xadafee nuun gi da ngay delloo si li nga xam ne mu nuun gee taxoon nga xadaf ko loolu mooy wardut ida xadaftaha fi lwaqfi ma fi ida xadaftaha fi lwaqfi na nga delloo si ma xaraf wa nga xam ni kaana nekkoon na udima ñu ñàkkoon ko fil wasli ca ba ngay jog dégg nga loolu mooy noonu ma wax su ko defee war yaani annahu yuraddu inda xadfiha ma kaana xudifa li ajliha naxwu idribun dégg nga dégg nga idribun yaa zaydoona wadribun yaa hindu xam nga xasaf nga waaw wadribin yaa hindu xasaf nga foofu yaa wad- wadribina idribi la woon nun gee taxoon nga ne idribin idribo la woon dégg nga nun gee taxoon nga ne idribun dindi waaw boo taxawee boo ko dindee fay naka ida waqafta alal fi'li dégg nga da ngay dind da ngay taqulu nga naan idribo ak idribi rek mu dellu des benn atte wa abdilanha bat ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa ci nuunu xafiga atte yin wax nuunu xafifa gee ko moom de gi ñu sàddawul wa abdilanha rap remplacé nuunu tawkid xafifa na nga ko remplacé alifan alif baada fatxin ci gannaaw fata su fekkee fata ko jiitu def ko binde ko alif waqfan ci ba ngay taxaw kama taqulu ni ngay wax fii xifan taxawal xif joo feddle nuunu tawkid nga ne xifan soo fa dee taxaw boo ne xifan yaa saydu mooy taxawal de waay bu wër a wër xifan yaa saydu waaye nga di fa taxaw nga ne ko yaa saydu xifaa alif ga nga soppi lu dem sunu ko dee firi di wax lu dul soppi ko waaye dafa war nu xam luy sarf gi tax nuy wax dégg nga as sarfu sarf ba lu ko dul am ñu ni maalaayan sarif la dégg nga wala fa koy firee lu dul soppi ko waaye soppi ko googu du soppi ko wala kooku bu doon soppi ko taxayur lay firi loolooy soppi ko ci loxo sarfu moom tanwiin la goo xam ne ataa dafa ñëw mu bayinan di biral maanan maanaa boo xam ni bihi ca maanaa boobee yakkoonu lay doone lisim am kana gën a dëgër ci baabu lismiya min xayrihi maanaam tëmkiin gu tegtale ni lisim jii day moo gën a piire beneen bu ko amul kooku mooy tanwiinu sarf tanwiin la goo xam ne ataa dafa ñëw mu bayinan di biral maanan maanaa boo xam ni yakkoonu dana nekkee lisim am kana gën a piire bu dul moom bihi ca maanaa ba booba maanaa mooy ñàkk a niru xaraf ba ñu di ko binaal ñàkk a niru fi'il ba ñu di ko xañ tanwiin googu looloy maanaama tanwin gi dafa biral si maanaam mi nga xam ne mooy tegtale piir ak lisim lan mooy maanaam mi dafa tegtale ni lisima ngi joo xam ne niruwul xaraf niruwul fi'il loolooy maanaam mi tanwin gi jox te kon loolu mooy doon lisim piir ndax bu niroo xaraf ñu xañ ko liraab complète binaal su niroo fi'il ñu xañ ko piiru liraab mooy duñ ko jare kasra dootu am tanwinu sax tanwinun ataa mubayyinan maanan bihi di day biral si maanaam moo xam ne bihi ci moom yakkoonu lay doone lisim ji am kan lisim ju gën a piire jeneen maanaam ju gën a dëgër ci lismi yegi te mooy maanaam mi muy biral mooy ni ñàkka niru feel ñàkka niru xaraf mooy maanaam bi tanwin gi wane si fa alifu tanwini mutlaqan mana sarfa alladi xawaahu kayfa maa wa mu daal di wax nag ci ala ci malayin sarif ay asbaabam malayin sarif eh mooy li nga wax lan la loolu man maa ngi jàng nas lismi ma mawaaniu sarfi tisun kullama ijtamaat sintaani minha fama lisarfi taswibu adlun wa wasfun wa taanisun wa macrifatun wa ujmatun summa jamun summa tarkibu wa nuunu zaidatan min qabliha alifun wa wasnu ficlin wa hada alqawlu taqribu loolu mooy loolu leneen la aw beneen aw tànk an sarfi dong la loon lim foofu juróom ñeent lañ kenn bi bare na am na ku ko boole ci wenn bayt nag ijma wa zin aadilan anis bi maarifatin rakib wa zin ujmatan wal wasfu qad kamala kooku juróom-ñeent yëpp boole na ko ci benn bayt boobu waaye kii nag moo ko wax waxu nu gën a yaatu dafa ni mawaaniu sarfi tisun kullama ijtamaat sintaani minha fama li sarfi taswib yi tere lisim doon munsarif juróom-ñeent la waaye pépp bu ca yaari yëf dajaloo ci benn sarfu ba soppiku ga dootu mën a am mooy adlun ñu di wolof da ko firee jàngal du dëgg niki tey eh, nee nañu mooy benn illa bi nga xam ne moo nekk ci umar ndaxte benn illa dong du tax baat di jóge ci cosaanu liraabam bi du doon maalaayu sari lu dul bu dee benn ci ñaar yii may wax ñoom am nañu doole am doole benn bu ci ne mën na ko alifu tanis mu mu jëkk a tudd am na doole ci buntu man u sarf moom dong dong dong su amul beneen illa bu mu àndalit mën na tax baat bi maalaayu sari alifu tanis dégg nga suya boo maxsoor gaa suya boo mamdoot gaa suya boo ci turu alam la ne suya boo ci sifa la ne suya boo sax ci lu dul alam du sifa am masdar nakira kese la alifu tanis lu dëgg suya boo sax am masdar la ne ni ki rujaa inna ila rabbika rujaa rujaa boobu su amuloon alif ak laamit kenn du ko tanwin mukk mas maa leen seeru lay wala mu ne ci alam suya boo ci turu góor la ne wala turu jigéen lu la ah moo taxoon mu jëkke ko su ko defee tanis bu fekkee alif la benn illa boobu dana tëyee fe ñaareel baatam moo di sixatu muntahal jumu'i wasnu mafaila ak lu wasnoo noonu fawaila noonu la wasnoom toll faalila noonu la wasnoom toll mafaila noonu la wasnoom toll maanaam da nga benn xaraf ñaar yu ñu fata alif ñetteel la ca topp ñu kasra ko ah loolu mooy wasnu mafaila fawaila noonu la mafaila noonu la faalila noonu la yooyu moom la ñu wax siixatu muntahal jumu'i yàgg naa leen koy wax ci fàttali rek la di lu tax ñu di ko tëggu yemukaayu jamu yi dafa fekk jamu taksir a tax ñuy wax de waxuñ jamu zakar salim muannas salim jamu taksir dafa war tey mooy liy gën a bare noo ja siqa boo ca mën a indi li ñu bare bare du tax baat ba wàcc awsaani masdar yi mufrad yi du tee baat yooyu du mën a génn wasnu mufrad yi toujours da nga gis mu mufrad mu mu war tollool su siqa ga yeggee ci génnee baat bi nag tollootul ak benn wasnu mufrad ah leneen dikk kooku kon faru bi dal nay juraale beneen maanaa far'iya ndax cosaanu lisim nañu ne nay mufrad soo ko jamoo far'o ngoog bànqaas lu dul cosaana ngoog far'o la lu dëgg waaye su fekkoon jamu ji taxu ko génn moroomi mufradam yi ñoo tolloo ñu mën koo muñ kon du tax baat ba doon maalayen sari ah kitaabun mooy benn téere soo koy jamu looy wax kutubun jamu la kon baat bi génn na cosaan far'iyaa ngi ci ndax lu doon cosaan mufrad waaye nag far'iyaam bi amul solo ndax teewul ma ngi dend ak ay mufrad seetal unuqun ji firi loos moo kutubun du ñoo tolloo ah waaw baax na kon ba tey jibaalun ay xeer du jam u jabalin far yaa ngi ci nag ndax lu doon cosaan ci lisim mufrad waaye far yaam bi garaawut ndaxte ay mufrad a ngi yoo xam ne ñoo tolloo seetal kitaabu nag jibaalun du ñoo tolloo wus noonu nga koy toppee ji jamu taksir yi dégg nga nga dikk ni jibaalun tey mën nga koo jamoo ajbaalun ajbaalun jamu jabali far yaa ngi ci waa musu ndaxte am na mufrad yu ñu def afaalu seetal asmaau bintu abi bakar asmaau du du mufrad loolu moo tax waaye nag su jamu taksir bi jamu bi taxee mu génnee ko awsaani mufrad yi tollootul ak benn mooy fawaa'ilaak mafaa'ilaak fa'aalila yooyu du doon wasnu mufrad ci arab su ko defee kon seexa gi rek taxaw taxawaayu ñaari illa benn bi mooy far'iya mufrad la waroon doon tey far iya dikk na ci ndax jamu la ñaareel bi mooy jamu ji faf na ko génnee awsaanu nawleem yëpp kooku mel na beneen illa bu ci doole ndaxte jamu gi waroon na dikk te du tax mu génnee ko moroomi mufrad yi ci wasnu su jamu yi dikkee yor ca dolli génnee ko aale moroomi mufrad yi day mel ne yaari illa yu toppaloon loolu moo waral alifu taanis itam moom itam lu doon cosaan tadkir xam nga li li cosaanu lisim an yakuna muzakkaran ay wa kon suñu ko taaniseelee far'u la ah li annahu alladi yaxtaaju wa maa yaxtaaju farun amma laa yaxtaaj te baat maarifaal ko mooy aajo nga ni nañ def nangam ndax muy maarifa nañ wuti alif ak laam def nañ ko def nañ ko def alam nañ ko ah kon alifu taanis kon taanis gi rek faru la waaye nag taanisu alif yelzam day taqoo baat bi faaw du di taqoo di koog moom loolu ko dem wuuteeg bu doon taanis gi bu doon taa du ko def taa dana taanis waaye qaa'imatun du tax muy maalaan sarif te sifa la taagaa ngi ci waaye taag yi du ci lazim bu di bu doon góor nga dindi ko daal di ne qaa'im ah xublaa jigéen ju di aji biir alifu tanis googu laazim la doo doo gis xublun mukk abadan xublaa rek lay doon de du dëgg loolu mooy kon alifu tanis it tanis gi fariya la waaye lusum gi mu taqoo te du tàqalikoog lisim ji it dafa mel ni beneen illa la loolu mooy illa yooyu yaar siixatu mun tama taxal ju mooy ak taanisu alif moom doo nga ci ñaari illa yoo xam ne ñoom danañu tëyee lisim ji muy maalaam sari yeneen juróom-ñaar yi ci des benn rek mënu cee tax lisim di maalaam sari il faut que ñaari cay ànd waaye yan ñaar yan ñoo ci mën a am amma alam moom ku mu mën a dool àndal alam moom wasnul feeni rek la mën àndal benn illa boobu wala mu ànd ak adlu ni ki Umar lu dëgg wala mu ànd ak ziyaadatu faalaan ndolli fu alif ak ki ni ki Imraana ak Usmaana yooyu yett la alam man àndal kat ah sifa nag moom mën na ànd ak wasnul fiili ni ki akramu mën na ànd ak ziyaadatu faalaana ni ki kaslaanu du dëgg mën na ànd ak adlu ni ki masna ak sulaasa ak roba mën na ànd ak lan moom mën na ànd ak yent yëf mbaa juróom mën na ànd ak adlu mën na ànd ak ziyaad mën na ànd ak wasnul fiili ma gis isma wazn adlan anis bi maarifatin rakib wasit ujmatan wal wasu waaw defe naa sifa mën na ànd ak adlu man ànd ak ziyaadatu faalaan man ànd ak wasnul feel ndax noonu rek yooyu rek la mën àndal soo ne ndaxte moom yaar yi soo leen bëggee séddale da nga naan baat bi fokk muy alam malaayin sarif day doon alam wala sifa su ko defee ku ci ne am na ñu muy àndal bu dee alam maanaa bu dee maarifa mën na ànd ak ziyaadatu faalaana waaye daal lii day day dar su boppam la te noo jàng jàng bis beneen bis nu jàng ko ber ko rek waxal wa alifu tanisi mutlaqan mamduud la wala maqsuur la mana a tere na sarfa alladi soppi ko lisim ja nga xam ni